tey ñuy dalal wa AGIR ak euh, ñom Alassane fi ci ëttu Andiscol bi nga né da fay euh, ki jël xalé yépp baña bédd kenn voilà donc motax di ngeen gis ci école bi ño xamné amuñu lago gis ño xamé na tamit ñu ngi am euh, ay wàññeeku ci xel wàññeeku ci ay cër waye lolu yépp ñu ngi ci liggéey pour que xalé yi progresser

Nous lu ñu gën a neex ci projet bi ci Nantes euh école bi dafa am nu mu dundee dafa am lo xamné moko soxé parce que xam nga Sénégal suñuy partenaire lañ parce que Rufisque ak Nantes dañu am coopération dañu sétlu won tay que am na forme handicap bo xamné tay mom lañu gëna xam Sénégal moy handicap bo xamné ne da nga am ago lago bo xamné ne ci say cër la mais lepp lo xamné ne ci xel la lepp lo xamné yo xamné gisunu ko buñu xolé bo xol suñu jigen bi fi nek ni tay mën nañ wax moy pionnière parce que xalé yi ngay gis dem école publique mais ñom tay dañu liggéey ci école maternelle âge bu nu mu doon rek dañu nak nante ak euh, établissement bi dañu jangalé kat yi parce que Anna ak président du ku nek lañuy jël rek nga doon kat fi dafa am étape yo xamné fa ngay jaar donc li ñu indi fi tay muy fontaine bi fontaine bi ndox boo mun a jël si àdduna lu mu yàqu-yàqu lu mu taxaw bu ko fi jaaree da koy sellal ba mu set té suñu rakk yi suñu doom fi nek ni soxla nañ am lo xamné école bi mu ngi leen di jox ñu ngi lekk mais ndox tamit dafa am importance bo amé ci yenn lago yi moo tax ñu def ci réservoir d'eau bi tay fontaine bi nek fi té nuñ ko défé ni non lañ koy défé ci établissement école yu nek ni mais association bi xamné mo ci taxaw moy agir ensemble dafa jokorlo ak ay association yu nek Nantes muy Flamme Africa muy maison de l'éclaireur muy Andy School commune de l'Ouest avec maire Alunmar Mar